ndax li ñuy sartanteel yëngal sa làmmiñ booy jàng alquran wala booy indi yenn xeetu tudd yàlla tontu bi mooy tudd yàlla dafa bokk ci jaamu yàlla yu gën am solo du yem rekk ci làmmiñ waaye dafay dem ci xol ak ci cër yi fàttaliku yàlla ci xol lu mel ni fàttaliku kéemtaanu yàlla yi ak bëgg ko ak màggal ko ak tuub dellu ci moom ak ragal ko ak wéeru ci moom ak yeneen yu dul yi ci ay jëfu xol fàttaliku yàlla ci làmmiñ mooy tudd bépp kàddu boo xamante ne dafay jëlee jegeel yàlla bokk na la ci gën a màgg wax laa ilaha illa allah fàttaliku yàlla say cër mooy bépp cër bépp jëf boo xamante ne def ko dalee jegeel yàlla lu mel ni julli wala ruku wala sujood wala jihaad wala joxe azaka waaye tudd yàlla yi nit di wax ci làmmiñam lu mel ni jàng alquran wala wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala eh, musluwaay ak ñaar yu muy def ci suba wala ci ngoon wala bu xëyee wala buy dugg wanag wala yu mel noonu mënta ñàkk mu daldi ci yëngal làmmiñam ngir bu nekkee yëngalu làmmiñam loolu kenn du ko konte loolu tudd yàlla la laaj nañu al imam malik yàlla na ko yàlla yërëm ci ki nga xamante ne moom dafay julli waaye li muy tari ci suuf kenn du ko dégg de moom du ko dégg keneen du ko dégg mu ne julli boobu kat fasoogul ba léegi laaj nañ ba léegi ibnu useymin yàlla na ko yàlla yërëm ci ndax dafay daal di war yëngal sa làmmiñ jamono booy jàng alquran ci biir julli wala boog dana doy dong nga tari ko sa biir xol mu ne jàngkat du mën nekk lu dul làmmiñ bi moom dafa dal di yëngatu kon bu nekkee doomu aadama dafay jàng ci biir xolam ci biir julli julli boobule fasoogul ba léegi naka noonu tamit mbooleem xeetu tudd yàlla ak fàttaliku yàlla daganul nit mu koy daal di tudd ci biir xolam dong kon mënta ñàkk doomu aadama mu daal di yëngal làmmiñam ak i tuñam ngir ay wax la yoo xamante ne du mën a fas lu dul làmmiñ bi ak tuñ yi dañoo ànd di wax